alaaj jibi moom mën nañ ne as ndongo la ndongo lu xeebu loo xam ne pas-pasam ci liggéeyal suñ borom ci toolu lislaam wax dëgg yàlla pas-pas la boo xam ne dañuy ñaan yàlla mu yokkal ñu ko te sàmmal ñu ko mën nañ ne loolu moo jur téere bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaane tuddee ko juróomi téere yi sëriñ bi ci làkk wolof yàlla dogal na it eh, ñoo ngi bokk ci daara ju ñuy wax masakul huda soobuwaayu njub suñu bunt ci yoon wi di Cheikhouna Cheikh Moussa Touré moom it kilifaam di buntam di wasilaam di Cheikhouna Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Daaru Cheikh Moussa Cissé moom it di taalibib sëriñ tubaa ndax nee na Serigne Serigne Touba moo ci doy liggéey mbay moom ma ci doy jaamu yàlla baatub laa ilaha illallah moo ma ci doy kon suñu silsila ci yoon wi mën nañ koo tënk ci foofa la ca desaatit mooy yàlla xiir nañu ci mbind ba téere bi ñu njëkk génnee ñoo ngi ko tuddee woon jàngal sa diine ci wolof ginnaaw ga muulaat nañ beneen téere génnee ko tuddee ko Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul jaar-jaar ak jàngale ñetteelu téere bi yàlla dogal nu génne woon ko noo ko duppe woon masaalikul jinaan ci làkk wolof su ko defee téere biñ mujjee génnee mooy juróomi téere yi sëriñ bi ci làkk wolof mën nañ ne ci gàttal kookoy Alaaji bi teewul nag am na ci yeneen yoo xam ne ci lay yëngu ndax bu dee wàllu liggéey yàlla dogal na ci infographie ak imprimerie ci la ñuy yëngu ba taxawal ci suñu këru bopp boo xam ne ci la ñuy liggéey tuddee ko Iriscom euh, teewul it am na daara internat boo xam ne ñoo ngi ko taxawal fële ca Tivaouane Peulh euh, tuddee ko institut islamique Iqra yor fa ay ndongo ànd kook ay oustaz ak ñu xarañ ci wàllu alquran di ci liggéeyal lislaam rek ni ñu ko waxee ci njëlbeen gi tey ñaan suñu borom defal ñu ci tawféex ci gàttal lu xeebu li mooy alaaj jibi sey ci yii daal la nekk di ci sàkku seen ñaan bu baax a baax jërëjëf ci ñaareelu laaj bi jëm ci loo xam ne xëy na ni ko français di wooye mooy loisir mën nañ ne mooy loo xam ne luy sedd sa xol la ginnaaw boo noppee ci liggéey loolu moom ni ko sëñ Tuubaa jàngalee rek lañ ciy wax sëñ Tuubaa dafa waxoon ne dénk naa leen ñaar te bu leen wut lu ngeen ko ñetteele mu ne liggéey ak jaamu yàlla Sëñ Tuubaa teg ci ne àdduna loo fi gis lu mu rëy rëy rëy sutura la mu ne teraanga yowmal xiyaam la am Sëñ Tuubaa ne ku bëgg sutura ak àdduna dafay nangoo liggéey ku bëgg teraangay àllaaxira dafay nangoo jaamu yàlla su ko defee kàddoom gi dañuy ñaan suñ dund méngoog moom ba nga xam ne li ñuy liggéey mu ñuy dimbali ñuy suturlu mu ñuy dimbali ñu mën cee ter teral ci wax nañ ko sànq bu weesoo nag suñuy waxtu yi ñuy jox suñu wàllu liggéey li ci des lépp dañoo bëgg mu màng jëm ci wàllu jaamu yàlla moo tax mën naa ne li ëpp ci suñuy yëngu bu dee nekkul yënguy liggéey mën naa ne yënguy daara la daar ji ci jiitu mooy masagul huda di suñu daara ji nga xam ne fa lañ tarbiya fa lañu tarxiya fa la ñu gindee dëgg dëgg gindi ci suñu borom subhaanahu wa ñu ci sant yàlla bu baax te mën naa ne loolu mbooleem liggéey yi feeñaat ginnaaw ga loolu moo ko sabab ndax ndaw donte Saalum lañ ganee jamono ñoo ngi yaroo ndakaaru gone nag bu yaroo ndakaaru ku ne xam na ni mu baaxoo mel su ko defee nag daje kilifa gu baax goo xam ne moo bittar ñi sa dund wëlbatiwaat ko orienté ko ci suñu borom subhaanahu wa taala loolu biñ dajeeg Cheikh Moussa Touré lañ ci yàlla defal tawféex ci atum 2003 2004 waaw yàgg na yàggul waaye mën naa ne soppeeku gu yéeme yéeme la ñu jural ba lépp loo xam ne ay mbóosóor la caaxaan la boo xam ne sawaroon nañ ci lool keroog lañ ko woon ginnaaw su ko defee ne yàlla defal ñu tawféexit ñu jublu diine bëgg lépp loo xam ne rawoon nañ ci ñu jéem koo dapaatal moo tax saa bu noppee ci wàllu liggéey ci li ñuy yënguwaat lépp mbiri daara la wax naa ko sànq ci daara jiñ bokk mi masakul hudaa suubu waaye njub ba ca desaatit mooy daara internat boo xam ne yàlla dogal nañu taxawal ko la nekk ci ndongo macha allah mën naa ne seenug wettali jëm ci suñu jëmm ju xeebu gi waaw loolu bokk na ci lu ñu gën a neex ci suñu dundu ndax xale yoo xam ne ay waajur dañ laa wóolu dénk la leen te alxuraan képp tax diine képp tax ak yar ndax boo seetloo sax màndargay daara ji loolu la daara internat ngir yar yarub islaam jàng alxuraan ak xam-xam su ko defee xale yooyu nga xam ne seeni waajur wóolu nañ ñu ba dénk ñu leen wéttali gi ñuy wéttali ci barab ba ca kër ga ca daara ja ànd koog ustaas yeeg soxna ya leen di toppatoog wax dëgg yàlla loolu moom saa buñ liggéeyul mën nañ ne ci loolu ci loolu lañ nekk waaw la cay njàmbaasuwaat it mooy lu mel ni daayira yi ñuy faral di def cant yi ñuy faral di teew gàmm yi ñuy faral di teew ak jataay yu mel nii nga xam ne léeg-léeg danañ cay dem di ci ci yëngu mën naa ne bu weesoo liggéey bi daanaka ci yooyu lañ nekk léeg-léeg lu mel ni Facebook bi lu mel ni YouTube bi lu mel ni Instagram bi léeg-léegi dina lay wéttali ba ci WhatsApp bi ci ay xeeti waxtaan yoo xam ne lépp li nga ciy jublu mooy laabiranteeg mbokku jullit yi ak mbokku taalibe yi ci lépp loo xam ne lu jëm ci yiw la ndax li américain wax ne time is money moom fa la ko yemale mel ni sa jot say waxtu lépp da nga ko war a màng mu jëm ci wut koppar ngir sa teraange àddina mais man damay faral di wax ne time is money ak time is money tu tuyaaba rek ak time is tuyaaba ñett yooyu rek la benn sa jot nga di ci wut alal joo xam ne gannaaw bu alal ji ñëwee da koy wutee tuyaaba ak jot goo xam ne li nga koy wutee mooy tuyaaba utoo ci alal waaye tuyaaba képp la su ko defee liggéey bi mooy wuti alal ngir jëmee ko ci tuyaaba li nga xam ne nag mooy sa yeneen waxtu yëpp lala tax a jóg mooy tuyaaba rek moo xam wird la moo xam zikar la moo xam daayira la moo xam daaraja la moo xam lu mën a doon xataa liggéey bi sax la nga cay fàggandiku ci xéewal lépp la ko tax a jóg mooy boo ca noppee nag sànq ko foo xam ne dëppoo naag lu yonti saa sam doon ñaan allahumma ma razaqani ma uhibbu faj alu xuwatan lii fii ma tuhibbu li may bëgg ci wërsëg loo ci teg sama loxo yàlla na nga ko defaat kàttan ba ma delloo ko ci li nga bëgg kon dañuy wut alal ci liggéey bi ngir delloo ko suñ borom buñ liggéeyul it ci liñ nekk dañuy ñaan lépp di tuyaaba lépp di yiw jërëjëf beneen yoon ci laaj bi nga xam ne bu ama am solo la te mooy buñ doon tënk alaaj jibi ak yoonu murit ak alaaj jibi ak làkk wolof mën naa ne làkk wi dafa bokk ci màndargay yoon wi tey buñ ne làkk wolof rek bokk na ci li ko taaral ku mel ni sëñ Moussa Ka doo ko ci génnee ci xalimaam boo xam ne bu rafet la ku mel ni sëñ Mbay Jaxate doo ko ci génnee ci xalimaam bu rafet ci way yoo xam ne yu gànjaru lañu ku mel ni Cheikh Samba Diarra Mbay ku mel ni sëñ Mor Kayre nga xam ne suñ borom daf leen a defaloon tawféex ci ñu jekku làkk wi xataa Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yàlla suñ borom daf ko cee defaloon tawféex lool mooy làkk wolof nga xam ne lim ci tomb ci ay tomb yoo xam ne lim ci daan jublu mooy jàngal mag ñi yee leen ci ay ndénkaan yu gàtt gàtt gàtt gàtt nga xam ne mën naa gàtt naam ci wax ji waaye mën na laa gunge sa diiru dund loolu li ci sëñ bi wax ku ñuy wax sëñ Alaaji Mbàkke Xaadimul Xaddiim dajale ci yu baree baree baree bari xëy na nag bañ koy njëkk jàng ñun noo ko jàngoon ci wolof boo xam ne dañ koo arabal maanaam boo koy jàng li ngay jàng ay arafi arab la waaye li ci biir wolof la mu nekk loo xam ne lu naqaree jàng la ndax jekku làkku arab ci man koo dawal rek doyul man koo dawal mooy nga mën koo liir loolu rek doyul ndax mën ngaa mën a dawal luñ bind ci arab te fekk ne buñ la joxoon arab yoo xam ne wolof la mën ngaa am jafe-jafe ci jàng ko su ko defee sëñ Alaaji Mbàkke ma tudd sànq bind ay téere yu ama am solo dajale ci ay jàngale yoo xam ne sëñ Tuubaa moo ko jàngale te lépp di wolof lu mel ni waxtaani sëriñ Tuubaa yi lu mel ni diyaafatu sama diya lu mel ni jataayi taxe lu mel ni garabug Tuubaa nga xam ne téere la yoo xam ne ay mujj ay ay téere yu bari la benn xaaj ñaari xaaj ñetti xaaj ñeenti xaaj ba juróomi xaaj leen léeg nga gis ko ci nga xam ne boo tënkoon la fa nekk ci ay waxi sëñ tubaa mën naa mat ñaari junni ba ñetti junni ma gis ne lii lu ama am solo la te xëy na ñi yàlla may ñu mën a ñëw tiim ko jàng xam li ci nekk mën naa nekk ñu néew ñu ne lii faaw ñu liggéeyal ci suñ borom subhaanahu wa taala liggéeyal ci sëñ tubaa ci lañ nag di ko taataan di ko jéem a yekk ci làkku wolof ndax yàlla dogal na jàng nañ français ba yeew yeewu ci bu baax a baax a baax waaw ndax am nañ suñu bag université def nañ fa ay at ku mel noonu nag dana am lu xam ci mbind mbindum français te gis nañ ne li ëpp ci réew mi bind biñ gën a jekku mooy mbind moomu leen ñu xalaat ne nag lii ñu yekk ci làkku arab te muy wolof war nañ ko mën a bittan ñi nag jegeel ko nuñ koy jegeelee mooy yekk ko ci wolof waaye nag jaarale ko ci arafi latin yi nga xam ne mooy ni ñu yoonalee ne noonu lañ war a bindee làkku wolof loolu moo indi woon téereb si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jaar-jaar ak jàngale nga xam ne ci niñ ko bindee daanaka ku jekku farañsa rek buñ la joxee téere da nga koy mën a dawal da nga koy mën a liir su ko defee li ci biir nga mën koo xam fekk na buñ ko bàyyi woon ca arab ba kese kese kese kese xëy na mën nga koo mën a bañ a mën a dawal te boo ko mënta liir xëy na li ci biir doo ko mën a jëriñoo mën nañ ne loolu bokk na ci li ñu ga euh, dimbali ñu ba nga xam ne làkk yu moom ñor nañu lool te gis nañ ne lépp looy jàng boo ko jaaree ci saw làkk ci lay gën a jàppandal ba tax na àdduna boo seetloo amul benn réew boo xam ne ci réew yu suqaliku da nga fekk ca seen jàngukaay ñu jàngee weneen làkk wuñ jéggaani ndax jéggaani aw làkk day yéexal day yéexal am njàng rawatina nag sa mbiri diine te diine xam-xam daf ciy bànqaas bu rëy a rëy waaw yonent bi sallallahu wax na ci xadis ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam farata la ci jullit bu góor farata ci jullit bu jigéen su ko defee nag booy wutee xam-xam wutee ko ci saw làkk dafa gën a jàppandal te boo seetloo téere xam-xam yu ci baree bari dañ koy yekk ci làkku arab moo tax li ëpp ci réew mi xam-xam sori leen ndax làkku arab dafa naqaree jekku lool ci mën koo dawal mën nga koo mën a dawal maanaam mën nga koo mën a liir te buñ la laajoon lu ñu wax ci téere bi doo ci xam dara bëri na ñum dal ci xasida yi sëñ Tuubaa yi bëri na ñum dal ci xaddis yonent bi sallallahu alayhi bëri na ñum dal ci alquranul karim am na ñoo xam ne boo leen joxe alquran mën nañ ko jëlee baqara ba naas te bo leen laajoon lu ci yalla wax mën nañ ci bañ xam dara la ko def moy dañ ko mën lire kep waye liñ wax ci biir mom amuñ ci xam-xam su ko defé nak bo leen ko jegeelee ci lak wolof ne leen yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena nangam ak nangam ak nangam ak nangam ci baati wolof ne leen seigne touba kat neena nangam ak nangam ak nangam ci waati wolof yaakaar li am solo moy am xam-xam bi rek ba taxna damay faral di wax ne aw lak dafa melni ndab ndab li likoy koy tax a gànjaru dëgg la meun nañ ndab li kat or la ndab li wurus la ndab li peureum la waaye nag li am solo mooy li ci biir ndab li ndax li ci biir ndab li la ñuy jëfandikoo su ko defee nag yonent bi saa arab la làkk arab lam làkkoon ci arab mën nañ koo tuxal ci waati wolof nga xam ne yow boo ko jàngee ci wolof xam nga ne yonent bi nee na nangam ak nangam ak nangam daal di koy jëfe ji waaye buñ ko bàyyee ci arab ba te jàppandiwul ci yow xëy na doo mos a xam ne yonent bi nee na nangam ak nangam ba war koo topp te wax dëgg yàlla yàlla suñu borom daf ñoo toppaloo yonent bi saa salaam wa ma ataakum rasul fa xuzuhu wamaa naa ko ànd fantuhu lu mu leen indil jàpp leen waaye lu leen tere bàyyi leen soo xamul lim indi nag ak lim la tere topp ga mënta rafet niki noonu sëñ Tuubaa dafa jàngale yekk xam-xam bu baree baree baree bari ci téeréem wolof bii daan ci waxtaan lu baree bari ci njariñ waaye ña ko yaxal nag ci làmmiñu arab boo seetloo ci lañ ko bindee te li ëpp ci askan wi jekk wuñ ko kon danañ am jafe-jafe ci lañ xalaat ne nag wax dëgg yàlla war nañ cee mën a liggéey yu ama am solo yoo xam ne dañ koy jegeel ñi nga xam ne jekku nañ làkku français jekku nañ ABCD ba nga xam ne téere boo yaxal ñoom buñ ko tiimee rek dañuy mën a xam ne kat diine ji lii ak lii ak lii mooy li ma ci war nii lañ koy defee loolu mooy indi woon li tax ñu liggéeyoon téere bi jàngal sa diine ci wolof te it un ancien étudiant daanaka étudiant yu bari da nga xam ne li ëpp ci seeni waxtu li ëpp ci seen jot ña ngi ko joxoon lekkoolu français boo amee juróom benn at nga dugg fa ginnaaw boo amee sa entrée en sixième nga dem collège boo jógee collège am sa BFM nga dugg lycée boo jógee lycée yaa ngi dugg université jaar-jaar bi ku ci jaar jot gooy jox diine ba gëstu ci liñ ci war a gëstu boo xefee mën na laa jafe te bëri na ñoom daal ma xalaat ne nag gannaaw yàlla defal nañu tawféex ba am na fuñ daan jàdd di jàng di xam di nafar ba jekk waale làmmiñu arab ba mën a jàng ca téere ya xam ca dara su boobaa nag yekk ko ci mbindin wii nga xam ne ku jàng ci français da nga ko mën a jàng xam ci sa diine lu baree baree baree bari eh, donc genre xettali lay doon ci ñoom buñ ko tiimee beru seen ruq tiim ko siggi mën a xam lu baree baree baree bari ci wàllu wàllu diine mën naa ne lii daal mooy liggéey bi nga xam ne suñ borom xiir nañu ci te sant nañ ci yàlla bu baax ndax li ëpp ci askan wi jublu nañ ko téere boo xam ne mës nañ koo génnee mu des ci suñuy loxo ah daanaka mën naa ne amul waaw jàngal sa diine dafa jeex ba ma jël PDF bi may ko ci internet bi wax dëgg yàlla nga xam ne fu ne la nit daan woote yittewoo téere bi ndax li ëpp ci nit ñi seen faratay julleeg faratay koor ak asaka ak aj màkka ak ñu ci baree bare dañ koy umpale boo juumee ci julli noo koy defaree yu mel noonu dañ koo umpale mbërëg ak i atteem deretu wasin ak fasem fay wàllu njënd ak njaay yu ci baree bari da leen da leen a sori la ko def mooy téere yam nekk day nekk arab te jekkuñu arab boo liggéeyee téere boo xam ne nag ci wolof nga koy jàng xam ko li ko dalee ci biir nit kii gane jamono ba bi muy faatu lépp lu ko fa war jullee néew ak tudd doom yëpp mi ngi woon ci jàngal sa diine ci wolof xam nga kon day nekk téere bu am am solo boo xam ne nit ñi wax dëgg yàlla fàggu nañ ko ba mu jeex ba mu jël pdf bi maye ko Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasul jaar-jaar ak jàngalit loolu ko loolu ko sababoon jaar-jaar yi irwaa un nadim lañ indi ci làkku wolof nga xam ne irwaa un nadim ca arab la ko sëñ Mor Lamine Diop Dagana bindoon ñu indi ko ci lakku wolof mu jégué lol nga xam jaar-jaar yi jàngale yi itam nekkaat ci lakku lakku wolof ba ci juromi téré yi ñuy waxtaane lolou moko sabab juromi téré yépp arab la won Sëñ Tuubaa bindu ko ñu jëm ko tek ci lakku wolof indi arab bi indi tek gi ci wet gi muy wolof su ko défé boko ko ba siggi di nga xam ne kat Sëñ Tuubaa nee nangam ak nangam ci téré yi sangam su ko défé bo fa bàyyi mën ko top te boko topé sa l'islam nek l'islam gu rafet sak talibé nek talibé gu rafet lan moo tax ñu tànn tur wi nga xam ne moom lañ duppee téere bi muy juróomi téere yi sëriñ bi ci làkku wolof loolu nag liñ ci jublu mooy boo ko dawalee rek maanaam boo ko liiree rek xam li téere bi wundu waaw tey boo nee juróomi yi sëriñ ci làkku wolof loolu jarul sax ngay faram-fàcce ndax nit ki bu déggee wolof dégg li nga wax ca sa dafay xam ne juróomi téere yi Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul moom lañ dajale ci téere bi waaye nag dañ koo indi ci làkk wolof ndax sëñ Tuubaa ku gëstu ci moom tuuti di nga xam ne mbindam ci arab la daan bind koo xam ne ci arab la daan bind nag boo nee juróomi téeréem moom lañ dajale ci lan lay doon ci làkk wolof ba nga xam ne yow arab bi bu la ba boo ko dawaloon mën koo liir ba mokkal ko sax di nga ko gis bari na koo xam mokkal na xasida te boo ko laajoon xasida gii nga mokkal lu ci sëñ wax du la ci wax dara lu dul tari ko ni ko sëñ bi bindee woon rek manu ko lu am solo la nag waaye nag boo ci njàmbaasoon mokkalaale li ci sëñ bi jàngale ba mën koo jëfe ji yaakaar naa mooy ëpp solo rawatina nag téere xam-xam yi téere xam-xam yi mooy lu mel ni juróomi téere yi nga xam ne ñoom lañ ñoom lañ dajale ndax sëñ bi lim ciy jàngale lépp wàllu xam-xam la lépp lu jullit bi yittewoo digganteem ak boromam la bu bëggee jaamu yàlla ki ci jawharu nafis nga xam ne moom lañ ci njëkk a tudd ni ki nëx ju xadaayil xaaj nga xam ne sëriñ bi lim ciy jàngale lépp wàllu teggin la lu mel ni mun na wiru sudur nga xam ne ci wàllu tasawuf la jëm ci wàllu xolu doomu aadama ci wàllu ay cëram lu mel ni mawaahibul xuddus nga xam ne kenn li gën a rëy ci diine moom la ciy jàngale muy wàllu tawhid waaw mawaahibul xuddus ba jeex sëñ Tuubaa tawhid la ciy jàngale te tawhid moom ëpp naa umpale ndax bu ko jullit bi umpalee amu ko rek mënta jaamu yàlla jaamu yàlla gu yàlla suñ borom gërëm kon téere bi sañ ci waa taw tawhid mat naa xam ba ca des mooy xoqal bu kaaw nga xam ne bokk na ci lay boole ci yoon wi mooy nga am sëriñ maanaam mooy bunt bi lay boole ci yoon wi faaw da ngay jébbalu am sëriñ sëriñ bi ngay jébbalu nag mooy kan nu muy mel lu ko war sa digganteeg yow fan la la jëmee ci sa digganteeg sa borom lan la war a fekk ci yow ci ayib war dindi lu mu war a def ci yow ci ay xeeti ngëneel ci xeeti yar ci xeeti ya sa diggante moom lan na ca war daanaka xukkal bu kaw ba mu jeex li la sëñ Tuubaa jàngale xam nga lii nag ku ko bàyyi ca arab ba ña jekku araab képp ñoo xam li sëñ bi jàngale ci xeeti téere yi nu xalaat ne nag jaadu na yey na ñu fexe ba xam-xam bi sëñ Tuubaa yekk ci téere yii ñu jegeel ko nan lañ koy jegeele mooy yekk ko ci làkk wolof ba nga xam ne boo sëggee daal tiim ko da ngay mën a xeelu bu baax a baax a baax junj naa ko sànq ne làkk dafa mel ni ndab ndab li ci am solo mooy li ci biir nga xeewlu mu fajal la sa xiif waaye ndab lee ka yéemeeg ndab lee am solo ndab li wurus la ndab li xànjar la wala nangam taxu ko am solo loolu xajul fajul sa xiif liy faj sa xiif mooy nga yor sa loxo boo yoree sa loxo nag daal di daj ñam wi gannaaw boo dajee ñam wi nga daal di mën a xewlu ku déggul arab bu tiimee téere buñ bind ci arab xewlu du ko yomb waaw du ko yomb mukk ci àddina léegi nag boo jëlee ndab li ñam wi mu defoon ci biir nga génnee ñam wi def ko ci ndab loo xam ne dana jege waa ji suba dana mën a xewlu maanaam liñ yekkoon ci arab moom nga jël muy ñam wu neex wu ama am solo daal di koy def ci ndabal wolof su ko defee nag képp ku jekku làkk wolof day daal di mën a yoor loxoom gannaaw bu yooree loxoom mën a xewlu bu xewloo mu faj xiifam te boo seetloo bari na kuy woote woo taalibe ne bëgg naa sëñ tubaa sëñ tubaa laa gëm moom laa yaakaar te bés bu fa bàyyi ko bu waxee nga ne xanaa kii moom keneen taalibe keneen la waaye du sëñ Tuubaa bu jëfee nga ne taalibe keneen la waaye du sëñ Tuubaa la ko def mooy xéewal ak ñam wu tedd wi sëñ Tuubaa yekk ciy téeréem jàngale ko loxoom da koo jotewul bu jëf jotee day jëf jëf joo xam ne dëppawul ak njàngaleem sëñ Tuubaa bu wax jotee mu wax wax joo xam ne dëppawul ak njàngaleem sëñ Tuubaa la ko def mooy jàngale bee ko sori waaye bu ko jàngale bi jege woon nag moo xam ne sëñ Tuubaa nii la jàngalee njub nii la jàngalee yar nii la jàngalee teggin nii la teree jataayu woy texee di fexe bay nekk saa su ne ci lu lay may sa ngërëmal borom su boobaa nag bu fa bàyyi ko topp sëñ Tuubaa toppin wu tege ci yoon tege ci makaarimal axlaaq tege ci wéetal yàlla gu mat sëkk bañ kaa bokkaaleeg dara ndax lii mooy njàngaleem sëriñ bi kon dana jàppandal ci moom li ñuy doxee mooy mbëggeel rek bëgg nañ sëñ bi yem ca te boo bëggee yem ca képp képp te xam-xam wommatul sa mbëggeel boo xefee mën ngaa gaañ sa bopp sax te doo ko yëg mbëggeel li koy wommat mooy xam-xam su boobaa nag lépp loo jëfe ko wax dana tege ci mbëggeel gu mat sëkk waaye nag tege ca xam-xam ba doo gaañ sa bopp doo lor sa bopp te di nga toppee sëriñ bi noo xam ne dëppoo naag moom ni mu ko bëggee liggéey bu mel noonu nag moo tax ñu jël la sëñ bi yekkoon ci làmmiñu arab yekk ko ci làkku arab di ko jéem a tuxal ci làkku wolof ngir mu jege nit ñi danañ sawar lool ci leeral ni nu bindee téere bi ndax mën naa ne sëñ Tuubaa mooy ki bind nun li nga xam ne moom lañu jéem mooy lim bind yàq ko ci téere bi ñu daal di koy indi ci làkk wolof ngir mu jege ki nga xam ne wolof la jekku te loolu dafay seetlu boo xam ne man ak samay morom ku xool gis ko téere bi sëñ Tuubaa mi ngi nii arab la loolu boo waroon réew mi ba réew mi daj téere boo xam ne téere sëñ Tuubaa la boo xam ne arab la bëri na koo naan ko jàbb laaj ko ne ko wax ma li ci sëñ bi wax danaan tekk rek yaakaar naa ñi naan tekk ñoo ëpp foofu ñi nga xam ne buñ dawalee luñ bind ci arab mën nañ cee xam dara léegi nag gannaaw li ëpp ci askan wi jekku nañ mbindum farañse boo jëlee loolu jegal ko ci làkk wolof bindee ko noona bëri na koo koy jox mu mën koo jàng mën nañ ne loolu moo indi pas-pasu jëlee téere bi ci arab donte arab baa ngi ci biir téere bi ndax juróomi téere yi arab baa ngi ci biir waaye wolof bi da koy daal di ñëw gunge noonu kese lañ ko bindee dañuy indi lu mat fukki bayit wala fukk ak benn bayit wala fukk ak ñaari bayit buñ ko indee teg ko ci xët wi boo tegee bayit wi ci xët bayit yi ci xët wi su ko defee nag liy ñëw ëmb ko mooy nekk wolof bi moo tax jëluñu ko baat ginnaaw baat ni ki ñuy faral di defee boo nee yaa ay wa ndaw ñi laa tastaxiloo bu leen soxlawoo anil huda walis njub wabil uloomi ci ay xam-xam istaxiloo na ngeen di soxlawoo fastaxiloo na ngeen soxlawoo bil xifsi ci wattu watti laawa ak jàng xam nga am na ñoo xam noonu la ñuy jàngee ca daa ja muy xam njàngum majaalis lool nag boo ko bëggoon a toppee noona mën naa yàggu lool te léeg-léeg dajale ko indi maanaa yi dafay gën a gaaw ngir nit ki xam lu la Sëñ Tuubaa wax ci téere sàngam moo tax dañuy jël lu mat fukki bayit wala fukk ak benn bayit teg ko ci xët wi su ko defee nag li muy tekk ci wolof ñëw wër ko boo demee ci xët wi ci topp ñu indiwaat bayit ya ca topp tegale ko mu nekk fukk wala juróom-ñett wala fukk ak ñaar su ko defee bu ñu tegee bayit yi ci arab la koy wër ñëw nekk tekki gi nii lañ ko toppee ci juróomi téere yépp nga xam ne bayit yoo gis ci aw xët la koy wër loolooy nekk tekkeem ci wolof ba téere bi jeex mën naa ne nii lañ ko nii lañ ko liggéeyee ba mu jeex loolu nag liñ ci dimbali mooy xëy na xam-xam bi ñu am ci wàllu infographie nga xam ne téere bi design beeg xët wu njëkk bi lépp noo ko xalaatee noonu boo seetloo nataalu sëñ bi sax dañ koo dugal ci lu mel ni làmp waaw wërale ko benn leer goo xam ne moo ko wër ngir wane ne rek xam-xamu sëriñ bi ak njàngaleem dafay lu gànjoroo gànjoru ba boo ci sëggee dana la niital sa diiru dund loo war a wax loo war a def loo war a jikkoo ak loo war a daw nag ndax dalay xajamalal sa diggante ak sa borom waaw làmp la bu lay leeralal fi nga war a jaar ba téere ci ngërëmal ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala su ko defee loolu moo ñu dimbali ba xët wut nekk rek ñu mën faa jóor ne lii mooy arab bi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci téere sàngam su ko defee nag li ko wër ànd ak moom loolu mooy nekk wolof bi noonu lañ ko toppee ba téere yëpp jeex laaj bi it laaj bu ama am solo la ndax loolu moom làkk yépp lay dal ndax doomu aadama mën nañ ne mbatt itam te mooy culture am dafay am jeexital ci moom saa su ne boo demee Kajoor euh, ni ñuy làkkee wolof ak boo demee Saalum ni ñuy làkkee wolof ba ci Saalum sax am na wolof bu ñuy wax wolofu faana faana nga xam ne li ñuy jëfandikoo fa fa fa dafay bari lool bañ na faana faana waaw loolu yëpp ci ay wuute la ci làkkin yi euh, boo boo boo ñëwee ci ñi nga xam ne ay làkkat lañ yor seeni làkk bopp ñoom it ni ñuy làkkee wolof mën naa am euh, wute tey séeréer bi làkk wolof boo seetloo daanaka da ciy jeexital ci moom ni muy làkkee séeréer daanaka boo seetloo noonu lay xaw a làkkee wolof ak accent bi da ciy nekkaale lu mel noonu nag bu amee da ngay xool ni mu gën a jàppandee ci mbooleem ñooñu nga xam ne ñoom nga jubloo liggéeyal téere bu mel noonu nga def ko wolof yi woyof yoo xam ne ku ko dawal dana mën a xam ne kat sëñ Tuubaa nee na nangam nee nangam nee na nangam te bañ a soppi maanaam bi bañ a soppi la nga xam ne moom la sëñ bindoon ci biir loolu moom danga koy daw sa kéem kattan waaye loolu kenn mënu cee mucc waaw moo xam français bi la moo xam anglais bi la moo xam chinois bi la faaw mu am wuute yoo xam ne dafay am ci làkkin bi tey boo demee Chine la fa nekk ci xeeti làkkin ñeel chinois yi bari na waaye boo seetloo mandarin mën nañ ne moom la ñuy gën a jëfandikoo tey boo demee France français bi niñ koy làkkee ca kaw ak niñ koy làkkee ci suuf wuute am na ci waaye nag faaw mu am boo xam ne moo leen di boole ñoom ñu mën koo bokk nangu ñoom ñëpp ñu naan français académique waaw làkk yëpp noonu la mais anglais bi tey boo demee américain bi ni mu koy làkkee ak euh, anglais bi ni mu koy làkkee nekk Angleterre daanaka mën naa am ay wuute waaye yow boo bëggee nit ñi jëriñoo làkk bi nga jëfandikoo gannaaw jekku nañ ko ak nu ñu ko mën a jekkoo mooy da ngay fexe ba mu jege leen rek waaw yenn baat yi nga xam ne yu jafe-jafe la te am ay baat yoo xam ne mën naa bokk li muy tekkeek ñoom te gën a jege nit ñi nga jëfandikoo baat yooyu daanaka boo seetloo ci mbindin wi loolu lañ ci jëfandikoo néew na nga gis ci baat boo xam ne baat bu diis a diis la bu naqari dégg la waaw loolu tam bu ci amee it ndax suuraale nañ ko def nañ suñu limat maanaam suñu numéro téléphone ci xët wu mujj wi ci téere bi su boobaa nag jafe-jafe boo ci am may nañ ku mën a doon kuy dawal téere ba gis ci loo xam ne jafe la ci moom moo xam ci làkk wi la wala baat boo xam ne daj na ko mu xaw a kawe déggam kawe xam-xamam bu ñu woowee rek waaw luñ ci mën a laabiranteeg moom dinañ ci laabiranteeg moom ndax loolu suuraale nañ ko ci waaw nit mos na maa woo ci téere bu mu dawal jàng ko euh, di am yu may laaj waaw ne ma man moom ci geneen diina sax laa nekkoon yàlla dogal ma tàbbi ci lislaam gis téere bi mu ñor ma ma jënd ko nga xam ne lu mu ci xool lu ko jaaxal rek wala lu mu xamul day daal di mën la jokku ci sa jollosu maanaam sa téléphone ngeen mën a labirante ci wàllu lépp loo xam ne xaw naa jéggat ci moom kon daal luñ ci sóoraale la moom waaye jéem nañ koo woyofal njar koo njara njar ba nga xam ne kajoor kajoor baag bawol bawol bi saalum saalum baag jolof jolof beeg ku mën a doon bu dawalee téere bi mën na cee bañ a gis loo xam ne dana kawe am xelam waaw jërëjëf loolu moom mën naa ne dana yomb dana jafe ndax téere yoo xam ne dafa xaw a limu ci xët tënk ko ci ay simili yu gàtt mën naa jafe waaye dinañ ko jéem incha allah téere biñ ciy njëkk a wax mooy jawharu nafis jawharu nafis cheikhuna cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul dafa jël laxdar yi laxdar yi nga xam ne téere bu siiw la daal di koy tënk ci way way nag mooy dafa fexe ba daane li nuroo daane li bu nuroo dafay tax mokkal gi gën a yomb dafay tax it njàng mi gën a woyof ci kiy jàng boo seetloo laxdar yi dañ koo bind ci wesar nga xam ne dangay dawal rek di liir di dem di jàng di dem di jàng di dem waaye mu tënkaat ko nag ci jawharu nafis jàngale ci jàngale yu am am solo ci wàllu fiq ci wàllu shariatu ci wàllu julli def ci baabu saan yi nga xam ne ñaareelu bunt bi ba jeex lim ciy jàngale mooy xabla salaam baada salaam waaw boo jamajee ci julli kañ nga koy baamu boja je ci julli lan moy li tax nga sujjóot ñaari sujjóot njëkk ngay selmal ak lan moy li tax nga sujjóot ñaari sujjóot gannaaw bo selmalé té li bëri nañu ci am jafe-jafe ya. té loolu yëpp mi ngi ci biir téré bobu leen di na fiis lu melni ni jo xamne dafa wosin atté yi nga xamne moy dal ci kawam jigen ak mbeureuk atté yi dal ci kawam faratay julli yi julli yoyé yépp ku yër jawharu na fiis dang ko fekk ci biir njëlbeen gi it ñaaxé na lool ci ko xam-xam waaw sëñ Tuubaa ñaaxe na ci lool sax ba nga xam ne wax na ne képp kuy mukallaf dafa war ci yow lépp looy jëf nga xam taxawaay ban la am ci diine loo war a def la wala loo warta def maanaam sàkku xam-xam dafa war ci yow te loolu ko dem ci euh, laxdari da nga ko fa fekk waaw awwalu maa yajibu alal mukallifi tasxiixu imaanihi suma maarifatu maa yuslihu bii farda aynihi ka ahkaami salaati gis nga noonu la ko toppee ci laxdari sëñ biir noonu la ko indaalee ci ci ci jawharu nafiis daal di koy way nag nga xam ne da koy riime waaw nga xam ne li war ci mukallaf li ci jiitu mooy wéral ngëmam sa gëm yàlla dafa war a wér waaw gëm nga yàlla gëm yonent yi gëm téere yi gëm bispec gëm ndogal yi gëm malaaka yi léegi nag li koy wéral mooy nga am ci xam-xam waaw xam yàlla bu wér ba doo jaawale jëf yàlla ak jëfi keneen doo jaawale yàlla ak keneen la nga dégg ko ne diw yàlla laak naa nga wax yoo xam ne kenn xamul fu mu jógee waaw te li ci gën a xorom mooy da nga di way yàlla ko ñaanal ko mu yàgg fi te wér yàlla du ku ñuy ñaanal mu yàgg fi téwér yàlla aji sax la wa huwa xadimun maa lahu bidaaya wa zu baqaain maa lahu niaaya yàlla mooy ki fi jiitu te tàmbalewul fenn mooy ki fi des ba faw te amul fu mu yem kooku jar jar naa ñaanal mu yàgg fi mu wér jaru ko waaw kon li nga wax moo wérul waaw moo wérul te léeg-léeg ñàkk xam moo ci yóbbu nit su ko defee nag tawhid googu leen wéral sa ngëm googu lu ci bare bari sëñ bi jàngaleen na ko ci jawharu jawharu nafis ndax bu sa ngëm wéree da nga julli ji waaw nan nga war a jullee faratee julli lan la sunnee julli lan la boo jamajee ci julli noo koy defaree waa yooyu yëpp ñëw na ci téere boobu di jawharu nafis téere ba ca topp di nëx ju xadaa il xaaj nga xam ne ni ko sëñ bi tënkee boo seetloo mooy yoonu fajug aajo te yoonu fajug aajo téere boobu leen boo ca demee ba mu jeex sëñ Tuubaa teggin la ci jàngale teggin waaw woo fi daaray ne xayru kanzi wa xayru ma ixtaza bihi sëñ Tuubaa nee nag ci ñaari kër yi muy àdduna ak alaxira ngën ji koom mooy teggin ngën ji koomu àdduna ak alaxira sëñ Tuubaa na mooy teggin ba wax na ci bayit moom sëñ Tuubaa ne kanzil kitaabu wal xadiisu wal ëdëb laa jamu fiddatin wala jamu zahab waaw sëñ Tuubaa na sama koom kanzi sama koom mooy alquranul karim ak waxi yonent bi sallallahu alayhi wa ak ëdëb mooy teggin laa jam u fiddatin dee dajale xaalis am na koo xam ne ko luy sa koom wala sa koom fu mu toll dana la yor naa nangami million ci sama compte tabax naa nangam yor na oto nangam jàpp na ne lii mooy koom sëñ Tuubaa ne déedéet man sama koom du dajale xaalis du dajale wurus waaye sama koom mooy alquran hadis ak i teggin téeréb na ju xadaayil xaaj nag ba mu jeex sëñ Tuubaa teggin la ciy jàngale teggin sa diggante sa wéyjur teggin sa diggante koom mag teggin sa diggante ku la mag nga xam ne leeral na ci sax tariqatul ëdëb bi waaw yoonu teggin mooy nga yërëm ndaw képp koo xam ne yaa ko mag nga yërëm ko ni ki ndey ni muy yërëmee doom bàyyi ni muy yërëmee doom nga yërëmee ko noonu képp koo xam ne moo la mag nga wekk ko waaw maanaam nga respecté ko képp koo xam ne moo la mag nga wekk ko respecté ko képp koo xam ne yéen ñaar yéen a tolloo sa morom la nga def ko ni sa bopp Sëñ Tuubaa nee na yoonu tegg na ngi nii waaw wax ay bayit yu ama am solo ci biir wa kon ma annaasi jami an dëhraka kama tuxibu an yakuna maaka waaw mbooleem nit ñi nanga nga nekkeek ñoom ni nga bëggeeku ku nekkeek yow noona maanaam looy bañ bu ko def sa morom waaw yooyu yëpp jàngal na ko ci biir soññee ci ci xam-xam in na ci bayit yu ama am solo ci xam-xam leeral na nit ñi li ñuy gënantee du diwa ma jur waaw diwa ma jur déedéet la ñuy gënantee xam la ak diine innama tafawutal wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira nit ñi lañuy ñuy kawentee mi ngi ci xam-xam ak diine ku la ëpp xam-xam gën laa ragal yàlla dàq laa jaamu yàlla gën laa jub kooku noo mën a sant ak foo mën a dëkk munoo wax ba du la gën te lii dafa dëppook alquran ci njàngaleem suñ borom inna ja'alnaakum shu'uban wa xabaila li ta'aarafu waaye lu ci suñ borom teg inna aqramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen indallahi fa yàlla suñu borom subhaanahu subhaanahu wa taala mu ne atqaakum mooy ki gën gën a ragal yàlla loolu yëpp nga ca nax ju boo demee ca jeexital ga leeral na ci teggin yi war diggante taalibe ak sëriñ waaw ak sëriñ bi lan moo ko war diggante mag ki nga xam ne dafa jaayanteeg moom te jëm yàlla képp tax wa in saadal maqduur aw saqal muna ila cheikhi xaqin fil xaqati baarion fa qum fi hawaahu wa tabih li muraadihi wa dëh kulla ma min xablu kunta tusaanion waaw nga xam ne daf lay leeral ne la semi ba bu la jiitalee wala ndogal ba dimbali la nga dem ci sëriñ bu mat sëriñ nekk koo xam ne aqiqa daf cee raw nee na kooku na nga taxaw ca la ko neex waaw ndax la neex dafay dëppoog la neex suñ borom subhaanahu wa waaye sëriñ boo xam ne wanu la yàlla yóbbuwu la ci yàlla kooku sëñ Tuubaa dane na nga ko daw sax far waaw firaaru saalikin minal uyub awlaa bihi min ko xuyub ndax ki soobu yoonu yàlla daw loo xam ne tilim la daw loo xam ne ayib la moo gën ci moom muy ut a xam yu yu fàddu waaw wa man ala xayri illaahi dallaka fa firan min innahu dallaka loolu wax na ko ci beneen dénkaan ku la tegtal keneen ku dul yàlla na ko daw ndax daf lay sànq su ko defee leeral na nag melo ki ñu war a topp ci yoonu yàlla lan moo ko war digganteem ak taalib bi ñëw jaayanteeg moom loolu yëpp mu ngi ci biir Nahju Hadaa'il Haaj téere bu mel ni Munawwirus Suduur muy téere bu am am solo nga xam ne li muy tekk mooy lii leeral dënn te bu ñu lii leeral dënn liñ ci jublu mooy lii leeral xol yowmal xiyaam yàlla xol lay fay yàlla nee soxla moo seen alal yi yowma laa yanfau maalun wala banuun bis la boo xam ne alal du fa jariñ doom du fa jariñ illaa man atala bi xalbin salim la fay jariñ mooy nga yóbbaaleel yàlla gannaaw booy génn àddina xol boo xam ne dafa mucc ayib xol bu laab xol bu sell xol boo xam ne doo ca fekk bokkaale doo ca fekk rëy doo ca fekk ngisal doo ca fekk kañaan doo ca fekk soxor doo ca fekk lenn loo xam ne lu tilim la su ko defee boo demee ci na wér sëñ bi indi na ci yu ama am solo di ko di ko jàngale di leeral ne xol dafa mel ni buur ci tër ci cër yi waaw xol dafa mel ni buur ci cër yi xol fu mu jéng jëm cër ya topp ko ci lay faral di wax ne boo bëggee defar loxo bàyyil loxo boo bëggee defar tànk bàyyil tànk boo bëggee defar bët bàyyil bët boo bëggee defar nopp bàyyil nopp waaye defaral kilifaam kan mooy kilifaam xol boo defaree xol rek bët ne cocc boo defaree xol rek tànk ne cocc boo defaree xol loxo ne cocc ba nga xam ne li xol bi bëgg saa su ne ca la ñuy nekk yàlla na xol yu bëgg yàlla nag waaw moo tax yaa ngi koy defaree ci bëgguloo ko yàlla bëgguloo ko li yàlla bëgg loolu bu xasee ba am rek tànk dana sawar lool ci dox lu yàlla bëgg loxo dana sawar lool ci jàpp yàlla bëgg te lii sëñ bi jàngal na ko ci biir wa in turid aw salin maa li wajman li daaw hamaa fa aslih al khalb bila tatniisi khata tura bila laa tatniisi sëñ Tuubaa bo beugé defar sa mbolem teuri neena nee defaral xol ba du dese ben tilim tilim ak sa su ko ba ca topati di hokal bu kaaw waaw xoqal di téré bu ama am solo bo xamné danaka li señ bi jangale ci ak sëriñ mom téré bu ci gëna teunku te ko bu wër wër wër bu mel ni xoqa daana gis ko yombul waaw xoqa ba jeex sëñ bi lim ci leeral mooy sëriñ bi man sëriñ moo ngi nii lii mooy ay meloom dafay tudd yàlla bu wér waaw du regg ci loo xam ne lu dagan la xam nga ku reggul ci loo xam ne lu ko daggan la nu muy mel ci lu araam dañuy jóg guddi di jaamu yàlla wan ginnaaw lépp loo xam ne àddunay kese la noot seeni noon ba mujj yàlla fal leen def leen ay wëlli yu kawe kawe kawe kawe su ko defee ku ñëw dikkal leen ngir bëgg a àgg ci seen borom fii la ñuy jaar ak yow leeral ko ci yi ngay yóbbaloo waaw leeral ko ci nañ daan gottee seen bakkan nañ daan taxawee minaa tawaquf an xawlin wa an amalin xataa yarawu saxiixan bi shahaadaat waaw balaa ñoo wax wala ñuy jëf dañ koy xool peese ko ba mu lu suñ borom digle bu dee lu ñuy jëf ñu jëf ko bu dee lu ñu war a wax ñu wax ko waaye saa bu méngoog yàlla suñ borom tere kenn mënu leen koo waxloo kenn mënu leen koo jëf loolu li bokk na ci seen i jikko bu mujj bi nag mooy mawahibul xuddus di téere boo xam ne daanaka sëñ bi eh, téere bi imaamu sanusi eh, bu tuddoon umul barahin moom la ci sëñ bi indi di jàngale tawhidul ilahiya nan la ñuy wéetalee yàlla ñaar fukk yi war ci suñ borom ñaar fukk yi nga xam ne dafa jomb ci suñu borom ak ni muy layee nag yi nga xam ne dafa war ci yàlla ak yi jomb ci yàlla ba nga xam ne boo ko jàngee moom doo fa bàyyi koo mukk mukk di jaawale yàlla ko teg ci palaasu suñ borom subhaanahu wa taala loolu moom mbindeef ma warta nangu yow mi koy defit waye di ak ñàkk yow mooy tax nga di ko def ndax yàlla siisam bi du ci jóg ku dul jóg ci siisam te di kilifa wax dëgg yàlla waroo bëgg sa kilifa wala wekk wala naw ko ba bëgg ko faa teg moom waru koo nangu yow boo yeewoon doo ko nangu su ko defee maa bi xuddoo si tawhid lay jàngale waaw sant bu baax Tawhid TV ñaanal leen suñ borom yéene bi ngeen am ci liggéeyal lislaam ndax ni ngeen koy liggéey wax dëgg yàlla ñëw nañ fi ñëwaat fi waaye naw nañ ko lool ñu ngi leen di ñaanal suñ borom yàlla na yàlla barkeel liggéey bi yéene bi ngeen am ci tasaare njàngale mag ñi moo xam ci tijaan gi la ci xaadir gi la ci murit géeg lu mu mën a doon ndax lu ci génn lislaam amul yàlla na leen ci yàlla defal ndam ba defal leen ci ndam lu kawe seen jot waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax a baax tey siyaare itam suñu buntu ci barab bi waaw sëñ Alioune Badara ñoo ngi lay nuyu di la ziyaare bu baax te ñaan suñu borom it defal la tawféex ci liggéey bi yéene bi nga ci am wax dëgg yàlla yëg nañ ci dara yal yàlla mottali ko ba mu kawe sa njort ci barke alxuraan euh, barkeb Cheikh Moussa barkeb Serigne Touba barkeb Seydi Hadji Malick barkeb Cheikh Tidiane Chérif barkeb mboolem ñu baax euh, yàlla matal sa yéene matal suñu yéene ñun ñëpp ci toolu lislaam bi mën nañoo tënk foofu rek di wax asalaamualeykum ورحمة الله تعالى وبركاته